salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di jiital nuyo bi sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg te di nuyu mboolem njabootu sëñ Touba di am kontaan lool e, di sant yàlla bu baax bi nga xamee ne que moom may nañu fan ba ñu mën a fekkewaat e, koor gi parce que daaw ñëwoon nañ fi ci euh, même période et vraiment mu nekk toujours satisfaction ba nga xamee ne que moom nañu gis ndaxte euh, organisation bi ñu fiy fekk chaque fois day gën a amélioré et loolu euh, vraiment dañ ciy sant yàlla bu baax di gërëm daayira bi bu baax si li nga xamee ne que moom la taxawee par rapport ak koor gi waaye moom lay taxawee tous les jours parce que bu ñuy wax euh, jumaay Touba comme ni nga ko waxee du koor gi rek lay lay kii mais saa su nekk muy suba ngoon guddi ak tout le temps nga xamee ne que nit ñi dañ fi ñëw et su nekkee ne amul woon euh, toppatoo bi nga xame ne que daayira bi dina koy def defe naa euh, kon dina dina xaw a sooxee si yenn boor yi waaye sant yàlla bu baax daayira bi moom. Euh, ñoo ngi leen di gërëm bu baax par rapport ak taxawaay bi mais aussi euh, par rapport ak li nga xamee ne que moom nañuy jëflante ak administration euh, du si juste màggal Touba waaye bépp màggal bu fi bu fi nga xame ne que am na fi dañuy gis taxawaayam bu baax et it lii nga xamee ne que moom laay gën a sax wax si taxawaay bi mooy si inauguration complexe bi nga xame ne que ay junni junni nit ñoo fooroon ñëw gis nañ sa seen taxawaay aussi seen seen seen seen appui ak accompagnement si li nga xamee ne que moom mooy euh, euh, événement yi nga xamee ne que moom lay am. Euh, tey nag biñ fi ñëwee tamit ànd feex chef de service yi comme ni nga ko waxee ànd feex adjoint préfet ak sous préfet ak également son adjoint mu nekk aussi bés ba nga xamee ne it. dañu dañuy yéemewaat man maa ngi ko doon wax sëñ Bousso sax ne que man saa yu ma ñëwee gis par rapport ak euh, organisation bi ni ngeen ko tëralee ni ngeen koy def man daf may yéem lool donc euh, pour dire que euh, exemple la ba nga xamee ne que war nañ ko mën a gëstu war nañ ko war a wane si yeneen bërëb pour que tamit mu mën a am yooyu nga xamee ne que tout le temps ni mbir yi niñ koy defee dinañ ko mën a jaaral si yoon parce que chaque jour joxe lu toll mille 4000 repas wala mille ndogu loolu su amul organisation loolu du mën a ne loolu comme li ngeen ko wax depuis plus de de de ay ati ati at ngi nii ngeen koy def c'est parce que tout simplement am nga foo leen teg euh, seen seen seen seen seen tànk te vraiment euh, chaque fois dañuy gis ne que loolu day avancer euh, vraiment di leen si sant bu baax di leen si gërëm bu baax. di profité ci occasion bi pour euh, bàllu ax euh, jullit ñëpp ci euh, weeru koor wi di ñaan yàlla yàlla nangul suñu koor yàlla defal ñu xéewal yàlla defal ñu jàmm yàlla aar ñu aar suñuy njaboot di ci profité it ndaxte fi fan yi paase dañoo affecté maanaam président de république bi nga xamee ne que moo ñu name woon fii Euh, comme préfet de Mbacké moo ñu nommé euh, préfet bu Gossas sama adjoint moom tamit moom ñu nommé ko su préfet bu Pakour euh, di profiter su occasion bi pour tàggu wala pour vraiment remercier bépp population bu département de Mbacké si vraiment accompagnement bi taxawu bi di leen di leen sant bu baax si li nga xamee ne que noonu ñu gunge si at ak lu teg presque ñaari at. ñi nga xamee ne nekk nañ fi di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax di sakku nag euh, ñaan euh, par rapport ak li nga xamee ne moom nañuy fekki ak fi nga xamee ne moom nañuy jëm parce que jullit moom ñaan mooy gànnaayam euh, donc di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di sant mbooleem responsable daayira bi di sant mborom mbooleem kilifa diine bi nga xamee ne nekk na si dëkk bi di sant xalif général porte parole ak ñëpp incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah